tafaa'il yooyu nag benn mu nekk juróomi xaraf wala juróom-ñaari xaraf comme niñ koy jàngee léegi ci kanam tafaa'il yooyu nag waxoon na ñu ngi leen jëlee ci sabab wala watat ñu waxoon lan moo di sabab ñaari xaaj la saqiil a xafiif ak lan moo di watat muy ñaari xaaj sabab euh, watat xafi euh, watat majmu ak watat mafruq loolu la ñu waxoon mu ne nag sumal xumaas yi topp xumaas yi tafxiila bi nga xam ne juróomi araf lay doon nga xam ne ñoom la ñuy dajale am baxru nu muy askane nañ ko li xismee na jëm ci ñaari xaaj xumaas ñaari xaaj la aslin cosaan wa farin ak banqaas tafile yi nekk juróomi xaraf ñaar rek la benn bi moom cosaan la beneen bi banqaas la banqaas nag si cosaan yi lañ ko génnee luñ ko ci génnee dañ nga ko gis léegi wa subaayi yu tafile nga xam ne juróom ñaari xaaj la iqsim séddale ko ilaa salaasati usulin si ñetti cosaan wa furuin ak banqaas toaddu yoo ko yoo xam ne danañ ko compter xamsatan mu juróom maanaam tafila yi nga xam ne juróom ñaari xaraf lañ ñoom ñetti lañ am yoo xam ne ñoom lañ ak juróom yoo xam ne bànqaas lañ juróom yooyu nag ci ñett yi cosaan lañ koy génne muy juróom ñaar kon yi nga xam ne tafila yi nga xam ne juróom ñaari xaraf lañ juróom dégg nga juróom ñett lañ maanaam muy juróom ñett laa bëgg a wax juróom ak ñett mooy juróom ñett tafil yi nga xam ne juróom-ñaari araf la juróom-ñett lañ yi nga xam ne nag juróomi araf la ñaar lañ yi nekk juróom-ñaari araf ñett ñoo si nekk cosaan juróom ya banqaas lañ yi nekk juróomi araf benn moo di cosaan benn bi di banqaas tafil yooyu rek moom nga composé am ay baxru bu ñu waxee nag tafil yi bu boobaa mu ne kon fa asrun fukk la al jami seen kon tafaayil yi am yëpp nga xam ni ñoom lañ séddale ci baxru yi fukki tafxila la fukki tafxila yi dégg nga boo xoolee nañ toggaloo maanaam boo xoolee ne lii sabab ba ci nekk ak watat ah, nañ toggaloo fukk la waaye boo xoolee ci baat yi nag juróom-ñett rek la ndax léegi da gis mustafil ñëw ñaari yoon faa'ilaatu ñëw ñaari yoon juróom-ñett rek la waaye nag boo xoolee ci nañ togg lay xoo nga xam ne yii sabab la yii watat su boobaa mën ngaa wax ne fukk la su ko defee loolu la bëgg wax ci baytu boobu mu ngi lay andil nag tafxile yi tafxile yi nga xam ne ni mboolem baxru yi ci la jógee mu ne aal yi dama ci namu ci tafaayile yooyu mooy fuulun moom nag ci way fuu lan na la def waaye fuulun la fuulun wa mafailun ak mafailun ak mu mufaalatun la moom mafaalatun la def ak mu on dut konteel faa'ilaatun faa'ilaatun xad xafaa topp na ci ñeent yi ñooy cosaan yeneen tafaayil yëpp ci ñeent yi lañ ko génne fuulun ak mafailun ak mufaalatun ak faa'ilaatun cosaan yi ñooy commencé wasat tafila boo gis mu commencé sabab bankaas la mais bu dee cosaan wasat lay commencé wasat nag mooy ñetti xaraf bu mujj ba bu sukkoonee mu nekk watal majmu bu dee digg ba sukkoon mu nekk watal mafruq xoolal faulun watar la commencé ñetti araf mujj ga sukkoon mufa mafailun kooku watar la commencé ñetti araf mujj ga sukkoon mufaalatun watar la commencé faailatun kooku watar la commencé waaye watal mafruq la kon faailatun rek moo si commencé watal mafruq si yi nga xam ne cosaan la yeneen ñett yëpp watal majmu lañ commencé kon tafil yi commencé watat yooyu ñoo di cosaan te ñeent rek la xoolal faulun juróomi araf la kon moom waxoon na la juróom tafil yi nekk juróomi araf benn cosaan la ñu am mooy faulun gis nga cosaan yooyu ñu commencé watat waaye nag yi am juróom yi nekk juróom-ñaari araf moom am na ñetti cosaan mooy ma mafailun mufaalatun ak failatun lu tax nag tafil yi ñu tuddee leen yi cosaan yi bànqaas yi nga xam ne ñooy cosaan ñoom ñoo jur yi nga xam ne ñooy bànqaas tey fuulun boo koy xob bi da ngay commencé maanaam boo amee benn tafila bi nga xam ne cosaan la boo koy xob bi da ngay commencé ci watat bu ne continuer ba sës ci moom bu dee watat da njëkk bu dee sabab am na fii nga commencé sabab ba continuer ba yegg si ca sabab ba nga commencé woon ci misaal fuulun benn watat la mu ak sababu xafiif commencé nga ci fa faag yi faaw gi commencé nga ci watat gi am fuulun mooy cosaan la léegi boo ci bëggee génne nag bànqaas ba ci bànqaasu da ngay commencé ci sabab ba muy lun ba pare dëppaat ba sët ci sabab ba da nga naan lun faaw boo ne lun xam nga tafin bi day jeex mais da ngay dëppaat ba sët ci sabab ba mooy lun faaw mooy tolloog faailun kon faailun ci faawulun lañ ko jëlee dañoo commencé ci sababu faawulun bi rek teg si watat ba ñu am faailun waaw kon faailun ci faawulun lañ ko xobbee kon faawulun mooy cosaan ba faa'ilun mooy banqaas ba ñaari tafile yi rek ñoo nekk juróomi xaraf faawulun wala faa'ilun beneen tafila boo gis ci baxru rek juróom-ñaari xaraf lay doon waaye tafila maanaam boo xam ne dañ koy composé baytu euh, baxru ko tafila bu ñuy composé baxru mu nekk juróom-ñaari xaraf te du ñaari amut faawulun faa'ilun faawulun nag ci lañ génnee faa'ilun maanaam faawulun moom lañ xob bi génne ci faa'ilun mooy boo commencé ci euh, watat bi nga xam ne tafmila bi nga xam ne cosaan la nga commencé ci watat bi léegi da ngay dem ci sabab ba ci topp nga commencé fa continuer ba jeexal tafmila bi aleeraat ba sësaat ci sabab boobu nga commencé tegaat ci la ci topp tegaat ba mu jeex faawulu nag benn watet la ak benn sabab boo bëggee am boo ko bëggee xob bi commencé ci sabab ba muy lun faawu wala lun faawu mu tolloog faa'ilun waaye gis nga lun googu moo tolloog faaga lun nga sabab la woon kon faa sabab la ilun moo tolloog faawu faawu watat la woon kon ilun la kon faawulun gis nga ba nga ko xobbee am nga ci faa faailun ñaari ñoo nekk commencé benn bi cosaan la mooy faawulun parce que watat la commencé benn bi nag du cosaan bànqaas la mooy faailun parce que sabab la commencé te si faawulun lañ ko génne maanaam lun faawu rek mooy faawilun nga ñëw ci nga xam juróom-ñaari araf la nga xobbi ko boo ko xobbee ñoom it da nga juróom juróom benn sax nga ciy génne waaye benn bi dañ koo neenal arab yi wayewuñ ko mafaayilun mën nga ciy génne ñaar yoo xam ne nii ñu ngi koy jëfandikoo mafaayilun commencé ci sabab bi sës ca watat ba mafaayilun watat la commencé léegi dañuy commencé sabab bi stop mooy ilun mafaa mooy mustafilun ilun mafaa ba nga commencé ci ii ga da ngaa dem ba jeexal tafil bi ñëwaat ba sës ci ii nga commencé woon xiilun ma faa mustafilun ah kon mustafilun ci ma faa xiilun lañ ko xobbe am nga benn léegi nag boo xoolee xiilun xii gi sabab xafif la lun gi sabab xafif la moo tax mustaf mus gi sabab xafif lañ koy tolle taf gi sabab xafif lañ koy tolle parce que fañ ko xobbee sabab xafif la mustaf waaye ilun gi moo toll ak mafaa te mafaa watat la woon kon ilun foofu watat la kon mustafilun ñaari sabab xafif la ak benn wasat mustafilun gooku kon gis nga ma mafaayilun xobbe nga ci benn mooy mustafilun léegi ba nga commencé ci ii gi iilun mafaa am nga mustafilun commencé ci lun ma faa que wax naa la da ngay commencé sabab bu nekk lun mafaayi boo commencé sabab bi da ngay ñëw ba sasaat ci moom door a noppi lun mafaayi mooy faa'ilaatun faa gi moo toloog lun kon faa googu sabab xafiif la faa'i xilaa gi moo toll ak mafaa kon xilaa googu watat majmuu la tun gi moo toll ak xii te xii gi sabab xafiif la kon tun googu sabab xafiif la kon faa'ilaatun googu sabab xafiif la ak watat majmuu ak sabab xafiif kon mafaa'ilun génn nañ ci mustafilun ak faa'ilaatun gis nga ñu ko xobee nga ñëw ci mufaalatun da nga ci xobee ñaar neelal benn ba mufaalatun kooku cosaan la loo cee xobee commencer ah, ci ala tun mufa mooy mutafailun léegi ala sabab saqil la kon muta sabab saqil la tun sabab xafif la kon fa sabab xafif la ilun watat mañ moo la kon ma fa watat mañ moo la mutafailun ñu ngi ko jëlee ci mufaalatun boo commencé ci alatun mufa mutafailun gis nga ba nga xobbee am nga mutafaayilun kon mutafaayilun ci mufaalatun lañ ko xobbee bànqaas la lu mu commencé sabab saqit ngay commencé tun mufaala mooy faailatuka kooku dañ koo nee ne wayewuñ ko tun mufaala faailatuka waaye boo ko leeral nag danga naan faagoogu sabab xafif la ndax tun gi ci la jógee ilaa watat mañ mu wala parce moo tolloog mu faa tuka kooku sabab saqil la moo tolloog ala kon mu faalatun mutafaayilu lañ ci jëlee ak faayilaatu ko waaye faayilaatu ko kenn wayeewu ko doo ko fekk ci benn ba bokku ci tafila yi ñuy jëfandikoo on dut konteel faayilaatun faayilaatun nag moom watat mafruux la commencé faayilaatun xat xafaa topp na ci faayilaatun boo ko doon xob bi dangay commencé ci laatun faayi dégg nga gis nga faayilaatun bi bokkut ak faayilaatun ga nga xobbe woon ci mafaayilun mafaayilun ba nga commencé lun mafaayi da nga am fa'ilatun fi tamit fa'ilatun waaye ñaari fa'ilatun ñu leen wutale mooy faayilaatun bii cosaan watal mafruukh la commencé amma fa'ilatun buñ xontee ci lun mafaayi kooku sabab khafif la commencé lun mafaayi mafaayi kooku sabab khafif la motax ñaari faayilaat ñuy doo benn doo leen boole doo leen jàppee benn parce que bii watar la commencé watar mafruux ak ñaari sabab xafif waaye benn sabab xafif ñu commencé ak watar mañ moo ak beneen sabab xafif moo tax booy compté tafaayil ñaari faayilaatun da nga leen teqale waaye dëgg-dëgg ci booy xool baat yi ñoom ñëpp faayilaatun lañ kon foofu benn da nga koy compté booy xool ci baat yi mais booy xool ci tafaayil ni mu toggaloo ci sabab wala wala wala watar ñaari faayilaatun la moom laa waxoon de faa'ilaatun boobu boo ko xobe woon loo ci ame boo commencé woon laatu faa'i maf'ulaatu maf gi sabab xafiif la on gi sabab xafiif la ndax fa mu jugee mooy tun maf gi mu jugee ci laa on gi jugee ci tun faa'i moo tolloog laatu kooku nag watat mafruux la ndax ci faa'i la jugee laatu goon moo toog mafruux la kon foofu ñaari sabab xafiif la ak benn watat mafruux nii ngay xobbee ñeenti cosaan nga fukki tafila kon tafila yi ngaa wax mooy faa'ilun ñu jëlee ci faa'ilun jeex na yooyu rek ci mustaf'ilun faa'ilaatun gis nga mustaf'ilun bi déedéet waa tun tun kon tuumu tun faa'ila mooy nekk mustaf'ilun waaye moom mustaf'ilun gu jógee ma faa benn la mais nak nañ composé wu moo ko ben il mafailun ba nga commencé ci iilun mafa da nga am mustafilun boo xam ñaari sabab khafif la ak ben wasal mafruq waye failatun mom ba nga commencé tun faila da nga am mustafilun boo xam ne benn sabab khafif la ak ben wasal mafruq nga do see ak benen sabab khafif tun faila mustafilun fofu muskire moy sabab khafif parce que mo tolok tun waye tafi كو وتل مفروغ لا باسكو سي فاعل فاعله تولو لون غوك نا موم سبب خفيف لا تعيل مفا كوكو عيل غي موي موي وتل مجمو مستف نياري سبب خفيف كون نين كومبو نين دوغلانتي سبب خفيف نيو بوكو واي نا سي بات ييب مستفعل لا كون بورون كومبوزي بيتي دا نان بحر يي دا نان سي يي لا نين كومبوزي بن فعولن ولا فاعل يوني نك جورم حرف مفاعيل dégg nga wala mustafilun wala faa'ilatun mustafilun ci mufaa'ilun lañ ko jëlee wala nga ne mufaalatun mutafaalun mutafaalun ci mufaalatun lañ ko jëlee wala nga ne faa'ilatun dégg nga mafuulaatu mustafilun mafuulaatu ak mustafilun ci faa'ilatun lañ ko jëlee bu la kon fukk la faulun mafailun faailun mafaayilun mustafilun faayilaatun mutafaayilun mafuulaatu mustafilu ak faayilaatu mufaalatun fukk la fonwulun wala nga jël yi nga xam ne ñooy cosaan rek muy ñeent fonwulun mafaayilun mufaalatun faayilaatun yi nga xam ne ñooy bànqaas nag mooy faayilun mustafilun faayilaatun mutafaayilun mafuulaatu mustafilu gis nga fa ñaari mustafilun ci fukk yooyu فعل مفاعل مفاعلة فاعلات فاعل مستفعل فاعلات متفاعل مفعولات مستفعل gis nga fa ñaari faa'ilaatun mais benn faa'ilaatun bi cosaan la parce que watat mañ mo watat mafruux la commencé amma beneen faa'ilaatun bi nag moom banqaas la parce que sabab xafif la commencé ñi ngi ko xobee ci mafaa'ilun nga ne lun mafaa'i moo nekk faa'ilaatun te lun googu tolloog faa gi sabab xafif la loolu tax ñaari faa'idaat yi bokkuñ ci ñun dugalante sababa watat waaye benn lañ ci baat gis nga fi ñaari mustafilun ñaari mustafilun yëpp bànqaas lañ waaye lañ wutee benn bi dafa jóge ci ilun mafa nekk ñaari sabab xafif yi toppalante ak watat mañ moom mafa moo nekk mustafilun beneen bi nag jógee ci tun faila nekk benn sabab xafif nga teg si watat mafruux door see tegaat beneen sabab xafif moo tax boo koy bind da ngay daggati boo ne mustafi da nga yem ci igi parce que igi ak nun gi bokkuñ bële mustafilun da ngaa da ngaa jokkale ilun gi parce que ilun gi loolu watat majmoo la mais fii nag comme que benn sabab xafif la mustafi ngay wax ñu xam ne tafi gi kooku watat mafruux la lun gi sabab xafif boxam la kon boo ne nga ne yi ñuy composé bayti yi yi nga xam ne ni beytu boo dem yii rek nga fay fekk juróom-ñett la boo xoolee ci baati mooy faolun mafailun mufaalatun failatun failun mustafilun mutafailun mafaulaatu boo neexee nga ne fukk la boo xoolee ci ni sabab bi ak watar yi duggante muy faolun mafailun mufaalatun failatun failun mustafilun failatun encore mutafailun mafaulaatu mustafilun baxru boo dem yi nga fay fekk benn nga fekk ay faulun wala mafailun wala mufaalatun wala failatun wala failun wala mustafilun wala failatun beneen bi wala mutafaailun wala mafuulaat wala beneen mustafilun baxru doo fekk yu dul yi kon yii ngay composé am am baxru yii ngay composé dugalante leen am baxru waxoon nañ ne nag ñaari sabab da leen ci benn tafila waaye ñi noonu sababu xafiif xola fon luñ gisoo fa ñaari sabab waxoon na ñaari watat du dajee xoolal tafila yi fukki yi fon luñ gisoo fa ñaari watat waaye gisoo fa ñaari sabab kon foofu bokkut nañ leen wax mafaa'ilun gis ñaari sabab waaye ñaari sabab xafiif gisoo fa sababu saxiir mais gisoo fa ñaari watat ba tey mufaalatun gis nga fa ñaari sabab ba tey waaye gisoo fa ñaari watat waaye benn sabab xafiif ak benn sabab saxil la ala ak tun waaye ñaari sabab saxil ba tey faay laa tun gis nga fa ñaari sabab waaye ñaari sabab xafiif laa tun waaye benn watar nga fa gis faayilun tamit noonu moom moom benn sabab benn kii kii rek la benn gis nga fa ñaari sabab waaye xafiif de ak benn watat faayilaatun gis nga fa ñaari sabab faa gi ak tun gi ak benn wasal nga fa gis mutafaa'ilun noonu ñaari sabab nga fa waaye ñaari sabab yi gis ne ñaari sabab yi euh, euh, benn bi sabab saqil la benn bi sabab xafiif dégg nga moo fa ulaatu noonu ñaari sabab ak benn wasal mafruux mustaf'ilun gis nga ñaari sabab mus gi ak lun gi ak benn wasal mafruux mooy tafi loo ci déggee mooy ne ñaari sababu saxiil duñ dajee si benn tafila benn sababu saxiil ak sababu xafiif comme ni nga ko gisee si tafila yi ndax yii rek lañ jël séddale ko ci baxru yi am ay baxru dana ñëw ci baxru yi bu nekk yan lay jël ci juróom juróom-ñett yi wala fukki yi fonwalun mafailun mufaalatun failatun yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy cosaan ci lañ génnee yeneen yi yeneen yi nekk faailun mustafilun failatun waaye failatun boo xoolee ñëw na ñaari yoon mais bu njëkk bi watan mafruux la ñaari sabab xafiif bu ñaaree bi nag moom ñaar bu ñaareel bi faaxilaatun kooku benn sabab xafif la ak wasat mañ moo ak beneen sabab xafif nga am ci mutafaaxilun ak mafuulaatu ak mustafilun mustafilun boo xam ne ñëw na ñaari yoon waaye ñaar yëpp bànqaas la lu tax parce que bu njëkk bi ñaari sabab xafif la ak benn wasat mañ moo bu ñaaree bi nag benn sabab xafif la ak wasat mafruux ak beneen sabab xafif yi ñooy bax bi فعل وفاعل مفاعلة فاعلات فاعل مستفعل فاعلات متفاعل مفعولات مستفعل yii la ñuy jël nag séddale ko ci baxru yi buñ demee ba ci baxru yi da nga xool bu nekk lan la am ci mais fii xamee nga ci ne lañ la waxoon ne ne ñaari sabab saqil duñ dajee dëgg la parce que boo gisee tafaayil yëpp gisoo fa ñaari sabab saqil yu dajee loo fa gis sabab saqil ak sabab xafiif wala ñaari sabab xafiif lañ la waxoon ne ne ñaari watat duñ dajee it gis nga ko fii moom lay wax ne faas yi yii mooy faulun mu mufaalatun failatun hiya ñoom al usul ñoo di cosaan al arbaa yee ñeent ñooy ñeenti cosaan yi ci wàllu aruud maanaam ñoom la ñuy génnee yeneen tafaayil yi ñeent benn bi na xumaas yi la juróomi xaraf la beneen yeneen yi juróom-ñaari xaraf kon lam la waxoon ne la baxru yi ci ay tafaayil lay commencé tafaayil yooyu juróomi xaraf lay doon wala juróom-ñaari xaraf na tey na xolo yi la andil muy juróom-ñett yi wala fukki yëpp boo compté juróom ñaar xaraf nga fay fekk nga fay fekk wala juróomi xaraf yii ñëw ci saani ci saan nag ñooñu commencé watat moo xam maj mu wala mafruux ñett yëpp watat maj moo lañ commencé bu mujj bi moo commencé watat mafruux phase yi lii yée ñoom al usul ñooy ci saan al arbaa yi ñeent bil fakki ci xob bi leen baana lay feeñee asidatu juróom benn al mufaraa yee banqaasoo ci ñeenti boo leen xobee dañ si juróom benn yu ñu jëfandikoo juróom ñaar la sax moom mën waaye benn bi dañ ko neenal jëfewuñ ko muy juróom-benn boo ko boole ñeenti yi muy fukk dégg nga juróom-benn yooyu benn bi xumaas yi la mooy mooy faayilun buñ xot xot buñ xottee ci xumaas yi di fonwulun yeneen yëpp subaa yi lañ juróom-ñaar lañ dégg nga ndax ñoom ñu ngi leen xot xottee ci yi nga xam ne juróom-ñaari xaraf lañ tafele yi nga xam ne cosaane waaye juróom-ñaari xaraf lañ nga ne ko noo koy xobbee mu ne ko fokk ah, xob bi bi tariquhu yoonam ba an tabtadi mooy nga commencé awala kulli sababin si njëlbeenu bépp sabab wa watadin ak njëlbeenu bépp watat dégg nga dégg nga nga commencé si njëlbeenu sabab bu nekk commencé si njëlbeenu watat bu nekk tamurru nga continuer lil axiri ba ci mujj ga xataa tasila ba nga yegg ila alladi ci nga xam ne commencé woon nga minu ci moom awala njëlbeen da ngay continuer ba tafile bi jeex dégg nga waaye nag mu daari kan nga dabaatal maa faata la raw li nga xam ni ba ngay xob bi loolu fekk na moom njëkkoon nga ko tudd boo ko ne ba tafilaf ya da nga koy dabaatal andiwaat ko ba sës fi nga commencé woon xob noonu la ñuy xobbee comme ni ko defee nii léegi kama comme ni ngay waxee moo tax mooy mu daari kan da nga dabaatal maa faata la raw ni commencé woo foon xëy su yaqaa fu xob a xewee kama taqulu comme ni ngay waxee fii fon luñ ci fon luñ luñ fon ah dégg li mu wax nag ne dangay commencé si njëlbeen sabab bu nekk ak wootat bu nekk jër naa xoolaat fii moom booy xob bi si njëlbeen sabab bu nekk rek nga mën a commencé ndax fuulun kooku moom xobbiwuñ ko fenn mooy cosaan mafaayilun cosaan la mufaalatun cosaan la faayilaatun cosaan la ñoom nga commencé seen sabab waaye xoolal fuulun ba nga koy xob bi foo commencé si njëlbeenu maanaam fuulun mafaayilun mufaalatun faayilaatun ñoo commencé seen watat laa bëgg wax watat lañ commencé mais xoolal fuulun ba nga koy xob bi ndax commencé nga ci watat déedéet ci sabab nga commencé lun fa'u mutallaq fa'ilun mafaa'ilun ba nga commencé ci njëlbéenu sabab bu nekk nga commencé ba nga koy xob xiilun mafaa ak lun mafaa'i waaye mafaa gi moom commencé woo que boobu commencé ci saan ngay am kon li gënoon mooy xob bi gi yoon wi mooy na nga commencé ci sabab bu nekk continué nag ba tafila bi jeex nga dabaatal la la faree woon gannaaw ba sës fi nga commencé woon xob bi ma comme mafailun mun a commencé ci mafa di commencé ci watat watat boobu boo ci commencé rek cosaan nga yam kon li mu wax ne da nga commencé ci njëlbeen watat bu nekk jël naa xoolaat ci iid yi ngay commencé iilun mafa boo amee tafila nga commencé at ci lun gi tamit lun mafaai boobu jeex mufaalatun nga commencé ci alatun mufa commencé ci tun mufa ala boobu jeex faa'ilaatun nga commencé ci laatun faa'i commencé tun faa'ila affaire boobu jeex boo xoolee kon si njëlbeenu sabab bu ne nga commencé waaye commencé aussi si njëlbeenu watar ndax boo commencé ci watar rek kooku moom cosaan ngay am te cosaan moom xobbe wuñ ko fenn kon xob bi gi mooy nga commencé si njëlbeenu sabab bu nekk continuer ba tafi na jeex waaye da ngay dabaatal la la rawoon ba sës fi nga commencé woon xob bi mu jox la si misaal ne kama taqulu comme ni ngay waxee fii fanwu lu mën a mu ci lun fanwu li muy firi boolelun fa'u am ga fa'ilun ak mustafilun ñu ngi ko xobbee ci iilun ma faa mooy mustafilun ak faa'ilaatun ñu ngi ko xoddee xobbee ci lun ma faa'i muy faa'ilaatun waaye nag la nga xobbe xoolal fa ko xobbee la toll ak sabab foofu sabab la la toll ñu ngi ko xobbee ci alatun mooy mutafaa'ilun farati banha na nga ko toftale wilaa ci toppalante maanaam laa bëgg wax ne faailun ñu ngi ko xobee ci faulun mustafilun ak faailatun ñu ngi ko xobee ci mafailun mutafaailun ñu ngi ko xobee ci mufaalatun loolu lay wax na nga ko toppalante waa di nga compter mafaulaatu kon ñu ngi ko xobee ci laatun fail maa mustafilun ànd ak mustafilun ñu ngi ko xobee tun faaila wa faa'ilaatu ka faa'ilaatu ka uf ku kan na nga ko xobbi wa ahmilan nga neenal ko faa'ilaatu nag foo ko xobbee ci tun mu faala mooy faa'ilaatu ka waaye nag moom dañ koo xobbi neenal ko woye wuñ ko moo tax mu ne wa faayilaatu ko laatu ko uf ko kan nanga ko xobbi bi waax mi daa nga neenal ko ama lii ñuy wax boo xoolee waxoon nañ ko ci darsu bi passé mooy wala xarakaatu masque yi haawuna fii alastiwaay dañoo yemoo tey boo jëloon mafailun boo koy peese fu baat bi ngay indi baat bu nekk dafay tolloog benn baat ci tafil baat bi ngay njëkk indi mooy tolloog miim gi mim ngi ne dafa fataa waaye baat bi ngeen ni mën naa fataa mën naa daam mën naa kasara fii maska fi nekk na maska nekk foofu rek xaraf bi ngay njëkk andi na mooy tolloog gi comme que mim gi dañ koo bi ngay njëkk andi nañ ko maas waaye maska xaraf nekk fataa wala kasara wala daam te mim gi dañ koo daam laa bëgg wax mu faalatun déedéet ma faayalun mim gi dañ nekk mim mën nekk baa mën nekk naa nekk nañ ko maas rek maas gi mën nekk fataa wala kasara wala daam xaraf bi ngay njëkk andi si ñaareel bi dañ koy maas comme ni nga xamee xarafu ñaareel bi ci mafaayilun dafa maas waaye xarafu ñaareel bi ngay indi yow mën naa nekk baa mën naa nekk taa mën naa nekk kaaf mën naa nekk xaaf mën naa nekk xaraf bu ne mën naa maas fata wala kasra wala dàmm te mafaayilun boo xoolee fata rek la maas xaraf bi euh, faala dégg nga mafaayilun xarafu ñetteel ba alif la xëccaan la kon yow foofu baat bi nga indi araf bu njëkk ba bu ñaareel ba bu ñetteel ba sukkoon lay doon wala xëccaan mën naa sukkoon mën naa nekk xëccaan alif wala yaa wala waaw yow bi nga indi mafaayilun ñeenteel ba gis nga ne gis nga ne masque waaye kasra la yow mën nga andi xaraf bu la neex bul bul andi ayin rek araf neex mën nga ko andi si sa xarfu ñeenteel ba yow mën naa mas fata wala kasra wala dam ilun xarafu juróomeel ba yaa la yow it baat yi ngay indi xarfu juróomeel ba a nekk yaa guñ yaa xëccaan wala waawa xëccaan wala alifu xëccaan wala sukkoon loo ci indi baax xarfu juróom benneel ba guñ dàmm la yow xarfu juróom benneel na nga indi xaraf rek bu la neex waaye nag na fata wala mu kasara wala mu dàmm yëpp boo baax na xarfu juróom-ñaare ba ci mafaayil boo xoolee sukkoon la yow it sa xarfu xëccaan wala sukkoon xëccaan mu nekk yaa wala waaw wala alif wala sukkoon gu leer nañ mafailun dégg nga ala xibbi mafailun ala xibbi mafailun foofu nag man agi ak laagi xaraf bu njëkk bu ñaareel dama ko def fata comme nu ko mafailun defee fata dégg nga xarfu ñetteel ma def ko alif comme nu mu fii xib foofu shadda laa fa def te fi yaa fa nekk shadda yi kon sukkoon la waaye nag boo xoolee lun man foofu kasal laa fa def xibbi moo tax wala xarakaatu masque yi xaaw naa fii àll si waaye dañoo yemoo masque daal maanaam bu dee tafile bi juróomi xaraf la ay yow xaraf yi ngay indi na toll na nekk juróomi xaraf comme nu tafile bi nekkee juróomi ko defee xaraf bu njëkk ba ci tafile bi bu maasee yow it sa xaraf bu njëkk na maas mais nag du da ngay dëppoog moom ci masque moom masque daa mën naa nekk fataa yow nga indi kasra wala dàmm yow ant naa sa xaraf bu njëkk na maas rek lu la neex mën nga koo maas bu dee xarfu ñaareel dafa maas yow sa xarfu ñaareel ñetteel ba si misaal bu sukkoonee yow sa xarfu ñetteel na sukkoon wala mu wala mu nekk xëccaat xarfu ñeenteel bu maasee yow sa xarfu ñeenteel na maas xarfu juróomeel bu sa xarfu juróomeel na sukkoon wala mu nekk xëccaat noonu ngay peese way wi loolu mooy masque ñoo yemoo wa maytu saakini sukkoon gu dee wala xayu ak gu dund sa waawa yemoo lañ fii sukkoon gu dee mooy sukkoon goo xam ne xëccaan la yaa wala alif wala waaw sukkoon guy dund nag mooy sukkoon goo xam ne dafa am buron ba masque buron ba dégg nga tey ma faa man nga man nga faa def alam alam mu tolloog ma faa wala fuudun alam fuu mën naa alam ñaari xaraf yi njëkk yëpp dañoo yi nga indi dafa maas mais xaraf ñetteel moom sukkoon gu dee la fa andi mooy waaw mais sukkoon guy dund nga fa andi mooy sukkoon alam dégg nga tey fuulun lun googu sukkoon guy dund la dégg nga waaye mënoon nga faa def sukkoon buy dee alaa yaa alaa yaa muy fuulun alaa yaa fuulun pourtant moom lun googu sukkoon guy dund la fa def waaye sukkoon gu dee nga fa def muy xëccaan kon fu xëccaan nekk mën nga faa def sukkoon mën nga faa def xëccaan xëccaan gi mën naa dëppoo xëccaan gi ni ko indee mën naa nekk waaw wala yaa bañ moom dégg nga kon fu xëccaan nekk na sukkoo nekk wala xëccaan fu su nekk na fa su nekk wala xëccaan loolu moo di mooy affaire la wa mayitu saakini sukkoon guy dund guddee te mooy sukkoon ak xëccaan wala xayu ak guy dund sa waa ñoo yemoo fi dégg nga dégg nga wa shaddu shadda ka saakini kum aji sukkoon wal muharrak ak lañ maas yu ko def wala ko def ak lañ maas sa dégg nga kon loolu lay wax ne shadda dañ koy def comme sukkoon ak lu maas tey fa faulun mën nga ko peese fa kallim maanaam fu sukkoon mën a nekk te waxoon naa sukkoon mën naa nekk si barab boo xam ne nii mën naa toll ak xaraf boo xam ne sukkoon la wala xaraf boo xam ne xëccaan la sadda it fu sukkoon mën nekk mën na faa nekk kon sadda ak sukkoon ak xëccaan dañuy wutuwante tafaayee nag ñu amuñ sadda ñoom fa kallim mooy tolloog faulun léegi xam nga fon ñaari araf yu njëkk yi dafa maas man it sama ñaari araf yu njëkk yi ma indi dafa mas fakka waaye faulun arafu ñetteel ba xëccaan la ma indi fa sadda man kal sama arafu ñetteel ba xëcc sadda laa ko def kon sadda ak sukkoon benn la foofu mën naa fa andi sukkoon mën naa fa andi xëccaan mën naa fa andi sadda fa kal lim arafu ñeenteel man sama arafu ñeenteel ma mas ko xarfu juróomeel mu sukkoon ma sama xarfu juróomeel ma sukkoon ko it bu ma neexoon it fu ma def sukkoon ma andi fi xëccaan wala ma andi fi sadda sax loolu lay wane sadda dañ koy def comme sukkoon ak lu maas wa tanwiinu tanwiin sa xukki nettal nañ ko saakinan muy aju sukkoon tanwiin mask ak sukkoon la tey fuulun mën nga koo peese kitaabun ñaari xaraf njëkk yi maas na comme fuulun ñaari xaraf njëkk yi nu maasee wax naa la maas kii du saa ñu nekk benn sama xarfu ñetteel bi nekk xëccaan comme fuulun xarfu ñetteel bi nekk xëccaan jële moom waaw la andi woon mu andi alif na nekk xëccaan rek bun xarfu ñeenteel bi fat andi naa fa maska muy bu xarfu juróomeel ba nag tanwin la bun waaw bun kon maska ak sukkoon lañ koy jàppee boo ko doon peese ci wàllu euh, xarut baa ngay bind ak nuun parce que xarut liñ tudd lañuy ñuy peese pas luñ bind luñ tudd la ñuy peese kitaabun boo ko doon bind da ngay bind kaaf taa alif baa nuun nuun guñ sukkoon soo koy peese gue noonu ngay kon yow li nga tudd ngay peese waaye nag nekkul li nga bind ngay peese waloon kitaabun ah foofu bindoo fa sukkoon tarfu eh, te it kitaabun boo xoolee kitaa ñeenti araf rek la waaye li nga tudd moom juróomi araf la nun guñ sukkoon am fa kon tanwin dañ koy jàppee masque ak sukkoon moo tax wa tanwin tanwin xukkee nekk nañ ko saakinam aji sukkoon gis nga kitaabun foofu jàppal ne indi naa fa juróom-ñaari araf tolloog fon wala juróom-ñaari la araf bu mujj ba sukkoon la xam ni binduñ ko waaye tudd nañ ko taaru lañ tudd lay pees wa alifun alif wa ak lu mel ni alif comme yaa zida yokku nañ leen li xattin ngir bind kilaawuma comme si ñaar saqat dañuy rot minaay su booy dagg bayt bi booy dagg bayt alif bi nga xam ne ni dañ koo bind waaye dañ ko jàngaale yooyu doo ko doo ko doo peesewaale maanaam booy peese bayt yooyu doo ko peesewaale tey boo waxoon faqaalu fuulun la ñaari arafu njëkk yi maas na faqaa fa arafu ñetteel bi xëccaan la comme nu arafu ñetteel bi ci fuulun nekkee xëccaan arafu ñeenteel bi maas la comme fuulun arafu ñeenteel bi nu nekkee maas arafu juróomeel bi xëccaan la comme fuulun arafu juróomeel nu nekkee sukkoon wax naa la fu nekk ma nga faa def xëccaan waaye naa arafu juróom boo xam ne ma ko bind rek waaye jàngu ma ko comme que jàngoo ko arut faalewul loo jàngut li nga tudd lay lay peese pa li nga tudd faqaalu fuulun rek la am na alif goo xam ni boo ko doon peese foo koy dugal fenn waaye nag comme que tuddoo ko doo ko kontaale fa qaalu rek la am na foofu alif goo xam ne tudduñ ko moo tax peese waa duñ ko moo tax mu ne yu mel noonu nga xam ne dañ leen yokk ngir bind bi rek sooy dagg bayti maanaam sooy peese bayti bi doo leen kontaale wanzur xoolal la daa taqti baytin booy daggati bayti boo xam ne xad wusim bind nañ ko ilaa tafaila jëm ci tafila yi loo ñeel ko doonal kalimi walis baat ya booy dagg bayti bi maanaam boy peese xam nga tay tafeel bu lay juróomi xaraf te ñaar tafeel ñoo nekk juróomi xaraf fonulun ak faayilun yow juróomi xaraf yi nga njëkk andi rek mooy tolok tafeel bu bu dee juróom-ñaari xaraf juróom-ñaari xaraf yi mooy tolok tafeel bu bul xol baat yi baat yi mën naa jeex te xaraf yi jeexagut manam tafeel bi fam daanoo jeexagut tafeel yi fonulun la mafailun mufaalatun failatun failun mustafilun failatun mutafailun mafulatun mustafilun booy dagg fekk tafeel bi jeexagut bul taxaw deng tay mm, boran dag alayka salatullahi summa salamuhu alayka alayka fuulu fofu dañoo dagg ndun gi ne dañoo wax lu tax ñu dagg ndun gi maye nañ ko anaan alayka fuulu salatullah mafailun gis nga pourtant yégu yéguma ci laahi gi de déedée parce que bu tafile bi jeexee rek am na beneen tafila alayka fuulu salatullah mafailun salatullah mafailun denga hi summa fuulun hi summa fuulun salamuhu mafailun gis nga kon man xooluma baadi rek mais damay xool fu tafina ba jeexee rek ma dagg fa baat ba baat bi dama koy peese ba am juróomi xaref maanaam ba tafila bi jeex ma dagg baat foofu moo tax mu ne salaatullaa hisumma salaamuhu dégg nga alayka fuulu salaatullaa mafailu mafailun dégg nga hisumma fuulu salaamuhu mafailun mafailun na dagg nañ fa yàlla lu tax ñu dagg yàgg danañ ko jàng kon booy peese bayti da ngay xool tafila bi fu mu daanoo waaye bul xool baat ya loolu lay wane wanzur xoolal dégg nga la daa taqtii baytin booy dagg bayti boo xam ne xat wusima mandargal lañ ko ilaa tafaila lawu ci tafila ba fu yem rek yemale fa baat ya doonul kalimi bul xool baat ya bul wane alayka ngay jël ba pare peese ko salaatullahi peese ko déedéet su boobaa da nga jeexal tafila duggaat ci beneen tafila bu jeexagut waaw ndax léeg-léegi baat lekk tafila ba pare duggaat ci beneen tafila yow nag boo koy peese fa tafine ba daanee foofu ngay daggee baat boobu ba pare mottali baat boobu teg ci la la nga cee tegaat ba beneen tafine daane nga dagg pour nga xam baxru bi ñaata tafila ñoo ko composé boo xamee tafila ñu ko composé rek boo jàngee béyti da nga xam boobu ban ba ban baxru la in uridu al islam wa salaamtu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh